wax ne ñun ay ndaw lañ yoo xam ne kaw la lañu dëkk fii la ñu jàngee fii lañu màggee fii la ñu yaroo lew na gii lañ defee lépp daanaka bakk moo ñu fi génne suñu bàyyi tabax kër fële ca bustaan ñun ñu am suñu makkaanu boobu fële ca daaru ridwaan waaye day wax ne olof dafay wax ne lu njëkk sa xol lu jiitu sa xol rek daf ciy ëpp doole lew na nag dafa jiitu suñu xol ñuy sant bu baax di gërëm

am na rhumatologue déployer nañ ay médecins am un pédiatre déployer des médecins am deux médecins qui xam assurer la consultation générale déployer nañ les sages-femmes pour assurer le dépistage du cancer du col de l'utérus avec le poste de santé de Léona à travers monsieur Tala Dieng déployé nañ aussi les le dentiste du district sanitaire muy fi di faj ay bëñ aussi l'ophtalmo te amul fay dara lépp lu fi def ci consultation do fay ticket bépp garab le la fi jox dañ la ci xol bu sedd guy loolu nag ñuy fàttaliwaat askanu Kaolack ne suñu ay autorité locale kenn joxuñu fukki dërëm bu weesoo Mariama Sab mi ngi recevoir léegi enveloppe am ngi suñu poos xamuñ sax nu mu toll donc basé si woon sax pour réaliser li ñuy réaliser waaye nag Mariama ñu ngi remercier di nga koy remercier di remercier délégation bi mu fi bi mu fi bi mu fi bi mu fi yebal parce que wax naa ko ci sama benn émission c'est quelqu'un qui mérite tous les louanges de Kaolack parce que à chaque fois da koy dégg ci lo xamné mom bo boo nomination am rek bu ne kan la dañuy wax doomi Kaolack la moo xam mag la mo xam ndaw la donc ñu ngi koy sant diko ko fep fépp dekkil Kaolack bi ñu créé du lo xamné dañ koy créer pour euh, mu am coloration politique dañ ko créer pour nek un mouvement de citoyens lepp lo xamné day ñongal Kaolack lepp lo xamné da fay changer xar kanamu Kaolack lepp lo xamné da fay dëgëral doomi Kaolack ñun dinañ ci taxaw pour jappalé leen domaine yi ñi agir moy santé domaine bi agir moy éducation domaine yi agir moy formation domaine yi agir moy entrepreneuriat té bëgg nañ n'ak autorité yi nga xamné ne ñoo fi nekk ñu démarche inclusive woote démocratie euh, participative ñu ñëw jappalé ñu ñu and ak ñom lekolo ñun soxlawuñ luñ ñu jox ñu def suñu poche ñun suñu ndeyee suñu bayyi dañ ñoo jangal yar ñu jàngal ñu liggéey man bamay may liggéey ñaar fukki at ak ñeent la am bamay dawal auto buma sama bop ñaar fukki at ak am te université laa nekk di ko taxale ba yàlla may ma lu ma liggéey ma jënd oto bi ma koy njëkk a jënd 700000 laa ko jëndee fii bu amee dërëmu ko ci dugg suma yaay jee toog la waaye du keneen donc ñun yàgg nañ nekk ay maître self man gëmuñu nit jox ñu wala di xaar nit pour réussir wala pour dund waaye nag lii ñoom ñoo woote woon ne Kaolack moo leen tax a jóg doomi Kaolack yi ñoo leen tax a jóg kon bu nit jógee pour accompagner doomi Kaolack yi ñoom dañoo war a ñëw indi seen ay suñ indi seen touche participer ci li ñuy wax ne leur pierre à l'édifice waaye toog rek ne muq gëmm tëx gumba lu ku wax nga tontu ku wax nga sante ku wax nga point de presse ku wax nga dem alfayda def point de presse ku wax nga dem conférence de presse dénkewuñu leen Kaolack pour tontu wan teg dàggasante da leen dégg Kaolack pour ngeen teg par parparloo fële ñëw àndandoo ak nit ñi liggéey li nga xam ne mooy jëmale Kaolack kanam maa ngi sant maa ngi gërëm bu guddee jërë ngeen jëf. bi ma dégloo léegi gis naa ne la fédération des énergies positives moom lañ tuddee mouvement mu yëngatu ci walu santé ci walu éducation ci walu formation ci walu entrepreneuriat mais encore ci walu environnement pour ne citer que ça lolu dafa don lo xam ñun dafa dugg ci suñu compétence ndax it kat la lu jitu ma maire kon buñ né jangale amna ci cër boobu rek doyoon na pour ma ñëw taxaw vous devez santé également la fin transférées compétence transférée au niveau des collectivités territoriales loolu aussi donne. mais encore ma Nekat, le secrétaire général au niveau de l'association des maires du Sénégal chargé des collectivités territoriales et de l'intercommunalité loolu it pour ma ñëw fi ngir Pa Makhtar waaye Pa Makhtar dañ lay wax ne yoon bi nga jëm métti na mais njëriñ rek moo ko lal macha allah yal na la ci yàlla dimbali wax naa la léegi ne la ñun développement ku ko yëkkati moom lañ jiital avant ñuy nekk politicien moo tax ku ko yëkkati foo nekk rek suñ ko mënee ànd ak wér dinañ la ci fekk kon lañu ñu àndoon ak yow démb. jàppal ne gën nañ di ko ànd ak yow waaye sa diggante ak suma grand frère muy Pape Demba Bitèye mu rafet lool loolu it bokk na ci li tax sama relation ak yow incha allah rabbi lu ñu mën ngir jàppale la danañ ko def. tey nag dañu am mbégte am en même temps satisfaction ci li nga xam ne. moom la Pape Makhtar Touré def ndax ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom pénc bokk ak moom langue bokk ak moom ay activité yoo xam ne mënoon nañoo jàpp ne bokkut sax ak lii nii tey mu nekk activité parallèle bu muy def war nañ koo mën a séede kon kàddu yi ñu fi jël ay kàddu ngërëm la ak seede ci suñu digënté ak ki nga xam moy pap Makhtar Touré euh, ki nga xam mom mo nek le maître de cérémonie di Koulibaly wax na ko légui ni fu ñu ma seen d'habitude rek seen nañ fa pap Makhtar Touré ci walu politique loolu dafa am lu muy féddali mooy li ñuy wax la fidélité ak la loyauté te loolu buñ ko gisee ci moom te suñu waajur tepp fii tey ñu koy nuyu moom it au passage suñu yaay toog fii tey dañ ko koy seedeel daan nañ ko seede ci ay yeneen i bërëb ndax def nañ ko ci kanamu waajuram mu góor mais dañ koy defit ci kanamu waajuram mu jigéen

ci loolu ngeen def ci pam Makhtar Touré. lii ngay def nii prouver que nag yow ku sensible nga ci sa dëkk kon nag liñ lay ñaanal rek di ko ñaanal képp ku teew fii rek mooy ko loo ci mën benn mën ko ci ren yàlla def nga mën ci fukk wala lu ko ëpp déwén ak ay déwéni déwén ngir jëriñu Sénégal et de manière particulière comme ni koy en tant que kaolakiste kaolak gis ci il yalla na yàlla def jàmm ci journée bi nga xamné ñom lañuy tambalé les manifestations et les célébrations ainsi que les activités socio-sanitaires yi nga xamné mom lay organiser fi ak Sibassor yalla def ci taw tawfiq ak taysir